asalaamaaleykum mbokk internet yu seen football TV nuyu naa leen bu baax ziar len di am mbekté saa su defal len vidéo mbokk yi xibaar yi euh, donc dañuy wax mercato dinañ wax tamit match amico dinañ wax tamit suñu gaynde yi jouer ku si nekk donc ñu doré xibaar nak mekk li di match amico yi xamante ne am na tout d'abord Paris Saint Paris Saint-Germain dafa match ni fële ci Allemagne ñom ak euh, Leipzig après ñu jouer seen premier match ñoo match nul 2-2 cette fois-ci batay tey ñu victoire euh, donc Pape Gueye aussi tamit dina wax ci mom mais ñom dañ leen dóor 4-0 Brighton moo leen ko dóor Pape Gueye donc deuxième mi-temps sax dafa génn dinañ si ñëw bu baax Pape Gueye ak du côté de Villarreal Marseille aussi nous doon joué euh, match amical ñoom ak Augsbourg ñu euh, gagné am ndam après ñu defoon match nul 2-2 contre Sunderland tey un très bon match ñu ñu ñu gagné. nemmeeku nañu ne euh, Brest aussi tamit franchement de Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye ñu ko séddale leen à noter que tamit. qui dit Leverkusen tamit joué na il y' a y' a eu beaucoup de matchs mais beneen match bu ñu mën a aussi tamit concerne suñu c'est plutôt Lens bi gagné 3-0 euh, de Leinster loolu yëpp dinañ si ñëw suñu gaynde yi def match mais euh, dañu wax tamit match bi xamante amon na feulé ci Angleterre comme si moy trophée bi xamante ki jël coupe d'Angleterre ki jël championnat entre Manchester City ak Manchester United wa Manchester United defoon nañ li gëna difficile bar euh, Garnacho après donc Bernardo Silva égalisé ñu dem tiro bi ñu gagné 7-6 donc tey waroon nañoo am trophée waroon nañoo def seen maximum ñom ñi di Manchester United ba jël sa trophée la parce que dóor 1-0 à à huit minutes de la fin moon nga gérer quoi mais bon penalty yi dañ la gagné mënoo si dara félicitation assist loolu ngay wax. li mooy match amicaux yu xamante ne tey euh, seetlu nañ ko ñu dem sur la page euh, mercato avant ñu ñëw wax si gaynde yi. page mercato dañ koy dooree si Sanchez bi xamante ne dem na clubam bi mu nekkoon yàgg na. fële que ñu koy xamee muy Udinese ñu ngi wax un retour de Marseille mais man mosuma ko gëm donc lii rek moo gënoon a leer il est libre tout contrat mu dem du côté de Udinese bu ñu jógee foofu benn information pour xam maintenant c'est officiel du côté de fële ci Angleterre Premier League West Ham Todibo fallait signer jour bi nak Juventus la bëggoon mais xam nga rek 40 millions yi xamanteni West Ham teg na sur la table Juventus wul woon sax pour joxe 30 millions du coup donte le jour dafa bëggoon la zone de Juventus fële lay dem du côté de Todibo dem na du côté de euh, Angleterre c'est maintenant officiel pour 40 millions d'euros Carvalho bi nekk Liverpool day dem du côté de Brentford. dañ ko prêté à Brentford Rodrigo son de Liverpool dañ ko prêté à Brentford Rodrigo selon takkati xibaar bu ñu wax Marca donte Kylian Mbappé ñëw na avec tous ces joueurs là à keneen ak keneen et que City jaay Alvarez. Qui euh, dit Pep Guardiola da au téléphone pour voir que mais selon Marca le joueur va rester du côté de Madrid def Ben trio Kylian Mbappé et donc Vinicius Junior Il y a une information sur Solanke ancien joueur de Liverpool euh, bon move. moom signé di côté de Tottenham bu ñoom Pape Matar pour 75 millions d'euros c'est quand même Khas bu weex sur la table pour am donc euh, Solanke Ben information bu xamante ne ba tey ci ci ci bi Chelsea. Chelsea donc kii di Lukaku Braha ak Saloba da leen yóbbu si réserve réserve bi mais ñi ñi nee nañ équipe pro bi di entraîner ñom entraîner ñu nonu xam donc ba tax na c'est des joueurs yu Chelsea ne Chelsea tout len sen plan Lukaku on parle de de de de de Napoli euh, Saloba des équipes de de Bundesliga et de et de Premier League donc il y a y a y a énormément d'informations comme ça yu génn here we go selon ko xeba bi ñuy wax. Fabrizio Romano xamal na ne Mazraoui ak De Ligt euh, dañuy signé fële ci Manchester United c'est c'est quasi fait hein. normalement actuellement lenn rek moo manqué def visite médicale

Donc après un prêt du côté de Felice Portugal avec euh, donc, Braga, cette fois-ci du côté de Besiktas Leydon, nous lui souhaiter franchement bonne chance. Boki, euh, donc euh, doué, joueur Boukan, joueur bu Rennes, Paris Saint-Germain actuellement avec Bayern Munich, ben duel bu tang lañu xam pour am le joueur mu un joueur bu xamantene franchement ku ko am euh, donc di nga ci dal bu baax baax baax ñu duggal match amicaux yi xamantene gaynde tey joué lu su ni euh, donc il Ndiaye mon laa doon sànq ni il Iliman Ndiaye position positionnement bi sans pose problème xam après naa ni quoi nous jouer comme ailier gauche et pratiquement euh, mu ngi à la 63 68e minute pratiquement bal toute la laal et donc je vous je vous Everton bon du ma ça a à mal bali kaw yi bëri c'est pas. Euh, voilà peut-être amicaux règle grave garaawul wala Roma aussi techniquement parlant ñoo yoroon position bi parce que à 20 minutes parce presque Iliman dit deux ballons de là. Donc, pour vous dire que c'est c'est c'est c'est c'est un choix, j'attends de voir du côté des Premier League. Est-ce que Dina def def performance bi sénégalais yi xaar wax ne non championnat Angleterre moi championnat bu baax c'est le meilleur choix bi mu def par rapport ak Marseille et tout voilà on va voir on va voir parce que entraîneur bi non noonu xamoon du côté de Burnley du du du Pep Guardiola daal noonu laa ko mën on va voir la euh, continuité lol non Nampalys Mendy qui a fait un très bon match ñom ñom ñaw ñoo dóor ñoo yor Leinster 3-0 donc mu jouer jusqu'à la 85e minute mu génne donc man Nampalys Mendy donc avec un. donc euh, Nampalys Mendy encore une fois donc euh, c'est pas évident entraîneur bu bees ñëw ñëw rek jox la confiance boobu noonu entraîneur bi ko bi ko fa andi dem na Nice on ñu doon xaalis na amaat cette confiance là benn entraîneur bu bees ñëw jox ko confiance loolu pour man c'est une très bonne nouvelle. Pape Gueye euh, ça va pas hein, ça va pas 4-0 lañ leen dóor ñoom ñii di Brighton moo leen ko dóor Pape Gueye dafa génne euh, deuxième mi-temps il est un titulaire mais comme ni ma ko waxee il nekkul un résiste numéro 6 récupération joxe il est plus si kaw dans l'entrejeu il est plus offensif comme ni avons vu avec Marseille match nous nous mu doon dans ak moom daaw match amicaux yi presque du côté def si da koy bàyyi ci kaw mu mën ni kuy mën a ay esthétiquement parlant ay buts décisifs fallait la gën a fa taxaw maintenant il faut une équipe ñu seetaat seen taxawaay parce que ce sera pas évident championnat Espagne bu ren day métti lool gis ngeen waa Atlético ni renforcer seen équipe je ne parle même pas de Real et donc Barça euh, entraîneur allemand xam donc ñoo ngi commencé gis nank nànk xam vision bi mu am ak équipe am bu bees donc Pape Gueye donc yoo ko cere li ñeex pour def saison bu baax a baax a baax baax donc keneen ku joué ma si ami euh, ami euh, amical plutôt euh, donc c'est Niakhaté Abdoulaye Niakhaté Ndiaye ñoom Newcastle moo moo leen dóor 11h mais c'est encourageant donc déjà que dañoo def match nul 2-2 ak la Juve Juventus en Italie xam cette fois-ci ñu ñu ñu ñu joué ak Newcastle bi xam dafa dóor 3-0 donc Girone donc bon 3 xaw ma 4-0 donc Abdoulaye Niakhaté Ndiaye cette fois-ci ne titulaire lu sax.

mais ñu ngi Boulaye Dia ñu ngi xaar ñu ne tout proche de de Lat Dior Deuram on on attend yéen a gis kaa il Ndiaye li ma si expliqué Nampalys Mendy en forme Gana Gueye aussi je l'ai vu aujourd'hui c'est c'est pas mal comme du côté de Everton c'est pas mal contre Roma dans la récupération c'est pas mal Kalidou Koulibaly c'est pas euh, ban niveau la nekk amico koy moo ngi daw Sadio Mané ça reste très compliqué man dinaa def si moom vidéo Sadio Mané sur le côté là du côté de Al Nassr voilà li yàlla xam doy na donc boo jëlee suñu joueur dama ne Ismaïla Sarr moo ngi soog a signé sa place amagul ay minutes suñu joueurs yi fan lañu nekk ndax nekk nañu si forme ndax nekkuñu si forme mais li may gis nii bokk xeeñagul neex bokk mais c'est que ay match amical match amical moom jaraal match amicaux rek bi ma si am mooy fii leeg une semaine fii leeg début premier match euh, championnat yi dinañ si gën a am lu leer mais nii nii doo si xam ne maa ngi sans seen i Middlesbrough dañ leen dóor si sama trompe pas Mourinho ñoo xaar ba tey ndax day dem club ba tey ba tey ñu dara xam nga changé gul club plutôt Donc on attend un, très bon Monaco avec Lamine, mine euh, Jacobs et Crépin. Donc week-end national du Sénégal, de manière générale, il faut que nous un championnat pour nous xam carrément sen ak un niveau la ñu contre donc vidéo commentaire ngeen c'est toujours disponible ak ballon original au 77 352 31 01 fii sur seen football TV ñu jëfal leen ko ay prix yu abordable incha allah nga nekk fii ci réew mi wala sax bitim réew donc mbokk yi jaajëfal naa ne wax leen le maximum de like le maximum de commentaire donc euh, ak Zidane li mu wax Zidane nee na waa Barça passe ñuy def 40 fois course benn yoon la koy def maanaam 40 seen 40 passe mooy benn passu course loolu tamit noonu la ñu ci commentaire gars yi pour tooñaate un